Guessel di gox bu bokk ci commune bu Mbara département wu Gossas fii baykat naka noonu sàmmkat yi jaaroowuñu ab taal ginnaaw ba ñuy yor jur gi ne lu ëpp ñetti téeméeri hectare ci suuf la benn nit teg loxo tax ñuy artu ñi di kilifa yi. lii ñuy wax nag dañoo gis ne état bi jàpp nañ ne problème bi ñorul état bi problème bi mooy dafa nangu suufas sàmm yi nekk fii ci biir commune Ndiago di ci def lu ko neex. suuf soo xamante ne fii la ko fekk jaayuñu ko suuf si mayuñu ko suuf si amul lu mu def lu dul def ay borne lu dugg ci biir suuf soosu ñu téye ko te ju àggagu sax ci di ko béy kon kooku bu demoon bi di ko béy nan la problème bi di mel. déeg ba occupé na ko déegu déegu sukkandu occupé occupé occupé na ko dara fi mu toll nii du dañuy mënuñoo yeew fas mënuñoo eh, sàmm nag mënuñoo sàmm xar lépp doolu occupé nañu suñuy xar fi doolu soo demee ci pénc ma ña nga ñuy yeew mënuñoo sàmm fi ci àll bi occupé na àll bi bayu ko sonal nañu ci noonee ñoom sàmmkat yi nekk ci dëndu Geseel ne jot na kilifa yi yey ci lu ni mel sëñ Moustapha sëñ Mountakha Bassirou wax si président Diomaye Bassirou Faye wax ci ah Ousmane Sonko premier ministre na ci wax nañu nañu dimbali laay war a sooli nañu dimbali sëñ bi nañu dimbali nañu dimbali laay war a sooli may ñu jàmm amuñu jàmm de. mer ba futu la ñu def jëmale ko ci tekkaarulu kilifa yi lee la gesel takku taxaw ne la ñuy ñaawlu du leen ludul teg loxo ko seeni suuf.